Fatima maa ngi lay fay eh, di kontaan invitation bi eh, di nuyu sama mbokk arbitre yëpp et di souhaiter au passage un joyeux anniversaire à Sitor Ndour sa tey mu anniversaire ak ak Laurent aussi bi nekk arbitre Kaolack. waaw man benn benn benn xale la <laughs> mu la noonu en fait man je suis un professeur d'éducation physique donc euh, après sama bac j'ai fait le concours de l'INSEPS ma def fa six ans. ma génne depuis quatre dix huit j'ai commencé à travailler en quatre-vingt-dix-neuf donc de quatre-vingt-dix-neuf à deux mille quinze maa fii cours Sainte-Marie de Hann et maintenant de deux mille à maintenant je suis à l'institution Sainte Jeanne d'Arc bi nekk en face de la cathédrale voilà wàllum arbitrage j'ai commencé en deux mille six deux mille sept ba léegi maa nga ci e pour rappel rek ma nekkee INSEPS xam nga INSEPS boo fa nekkee à partir de la licence da ngay def option. man sama option sport collectif football la sport individuel combat loolu amoon na bëri amoon na judo ak un de boxe donc làmb yàgg naa ci. waaw Ousmane malheureusement nag malheureusement dañu gis ci làmb ñi nii xamuñ ci lu yëngu duñ la considéré ndax ah, ma la dañuy gis nii rek quoi ndax xam naa ne bon ay genre person yoo xam si ne dañu leen jënd rek quoi ak tel n'est pas le fi ñuy liggéeyee dañ fa nekk ay coordonnateur nekk fa ay responsable nekk fa ay kilifa. ñu am njaboot am ay doom donc làmb ji am une fois li ma fi indi par mu passion la rek mais du xaalis du dara parce que tedd na avant làmb waaw donc di waa encore ne waaw milieu làmb nañ jox considération arbitre parce que pas de n'importe qui voilà. waaw bëri na bëriwul su ma fàttali ko combat Gouye Gui ak Tapha maa ko arbitré maa ko arbitré. Ama Balde Malick Niang maa ko arbitré Boy Niang Baye Mandione maa ko arbitré Boy Niang Sa Thiès maa ko arbitré Sa Thiès Siteu maa ko arbitré Siteu Zos maa arbitré Balla Gaye bi mujjee maa ko arbitré sans compter nag yenn combat yu bëri yoo xam si ni j'étais dans le trio Modou Lo Lac de mu loolu le premier partout voilà loolu quoi donc combat yu bëri bëri macha allah te sant ci yàlla quoi soit maa ci biir soit je prends le grand combat voilà bëri naa ak fàtt na sa yeneen mais bëri na. pour mais pour choix bi sax en fait c'est le le le mercredi lañ ma woo ma bokk nga ci ñiy arbitré mais néew ñu ma yaa arbitré grand combat bi donc man bu ma ñëwee stade la xam ne man ak Malick ak Sor ñoo koy arbitré. donc affaire noonu la quoi donc munoo xam munoo xam ne yow la da bu demee ba neuvième combat bi jeex la ma kii désigné na ma jëlal grand combat bi Sitor ak Malick jàppale leen ko Franck xamee ah mais xaw mën na ma ko arbitré c'est à à deux minutes près noonu quoi donc bu ñu dem kenn mënul ne kii ma arbitré ba combat bi mu jëliñ naan jëlal. après foofu lan ngay. pression non non non. comme je man dama yàgg ci milieu sportif dama football nawetaan ba sonn nekk professeur DPS xam la mooy sport lan mooy waaw noo koy aborder voilà donc ma nekk enseignant xam nu may aborder élèves nu may aborder samay cours donc te comme def naa léegi sept ans ci ci ci ci non non depuis 2007 treize ans maa ngi ci bëgg yàgg quoi donc et puis habité naa ay combat tamit yu rëy à part boobu donc amatuwoon benn pression et comme ñaari mbër yi aussi dañuy bëree. ay machine yooyu dafa am et dafay leer quoi donc c'est des yoo xam si boo xoolee sax ñoo gën a yomb arbitré kaw combats yu ndaw yi ngeen xeeb noonu ah, man ci man ñoo gën a yomb arbitré que ndaw yi non en général gaaw combat yi sax amul problème c'est que en c'est la pression rek nii nii nii mais bu ñu boo siffler rek mu jeex en général non non non non non pour supporter yi nii non non. amuma ci benn xalaat pare naa taal sama oto ñëw sama kër point barre mais maintenant c'est que peut-être du mu ne buzz mais bu mu ñëwee sama école déjà non non sama élèves yi sax monsieur nii ma ne la eh lamb ji démb la c'est fini ñu dem suñu cours ak sama collègue yëpp ah bon donc voilà même samay parents sax ku nekk da lay woo et puis dañu woon naa la sama wàll. <laughs> ku nekk ku nekk ay cousin ay ku nekk ah foo ne tu as gagné nga ay millions. ci lan. mel ni ma arbitré combat Sa Thiès ak euh, Siteu benn amul dara yaa rien ah, li ñu lay fay foofu la ñuy fay fii point barre. Hmm, Malick cinq ans Babacar trois ans Dramé deux ans waaw grève boobu grève bi moom. en fait dañoo amoon benn euh, mu tudd mémorandum loolu yàgg naa man France bu ma ñëwee 2007 déjà en 2010 déjà on avait mis en on avait dit que il faut que yi xoolaat suñu condition. 2008 waaw yàgg yàgg naa mais comme temps yooyu dafa bëroon ay pas ci biir euh, CNG ci biir euh, arbitre yi pas yi ñu la naan xaar leen dina baax xaar leen chaque année on on on pose problème chaque année ñooñu xaar leen nga xamante ni aussi da dem ba sës. paa bu ñu demee aussi ñu toqaat pour ñu ne suñ suñu dañu daal instant bi nii c'est le moment ou jamais donc ñu ne ñu gis waa CNG ne ñu ne dañu bëggoon ngeen xool suñu condition de travail exemple ngeen assuré ñu parce que ñu assurance ngeen yokk suñu sécurité ngeen yokk li ngeen ñuy fay parce que tuuti na lool waaw bon Euh, pas yëpp pas pas pour non pour les pour yu bëri quoi ah, mais waaw mooy les grands moom tane na waaw mais combats yu bëri moom la pour cinq arbitres. cinquante mille cinq parce que day am trois day am trois yi am ki yore chrono bi ak kii di coordonné muy cinq ñoo si ñoo ñu koy séddoo man avant grève bi avant avant bi nii dem naa Bargny arbitraire Bargny ah, man taal sama oto def ci sama gasoil fay payage aller retour ñaata la def ci 5000 francs péage aller retour ñaata la 2800 ñu fay ma 10 000 francs te maa ngi jóge fii ay 14 heures añ ma parce que dama demee ne su ma añee tam wóorul ak embouteillage yeeg wóorul quoi bàyyi ma teel dem nga pare ñu fay la 10 000 francs ñoom ñu toll na 50 500 divisé par 5 loolu loolu jaadu na sànq maa ngi naan depuis 10 ans. mais chaque fois ñu nañu xaar leen xaar leen xaar leen mais bii de mille sept cent et puis ñun dem nañ sa bët bu waxtaan day ñoom benn yoon ñu nañ bind leen ñu bind jox suñu mémorandum ñuy xaarloo histoire neen yéen bind nañu depuis deux semaines tontu lañu bu mu forcé nag après ci lañ ci ci lañ ko wax aaree ñoom mais ñun bind nañu mais ñoom en retour bind ñu de dañ ko wax oralement ni ko wax léegi histoire ne ah gars de nee nañu nee nañu soo ci mun def dara ñun on va aller en parce que li ñuy daj métti na lool et puis mi ngi bëgg yàgg quoi Alioune Sarr ne ko su boobaa ku nekk na jël ay matuwaayam genre maas quoi xam nga donc noonu la demee nañu jéem nañu. mais en retour ñoom je pense que amu woon benn volonté ci maanaam ah, amu ñoon benn volonté pour def dara parce que même bu dul sa xaalis bi sax mais assurance assurance nit munoo munoo assurer sa arbitre mais c'est extrêmement grave soom noonu ne amuñu xaalis d'accord naa mais ah dama ne suñu ma waxoon ne ñu xaalis bu ñu fay arbitre yi bu ñu yokkalee d'accord naa mais assurer woo say arbitre loolu dama ne soit dafa nekk soxorte soit manque de volonté loolu rek jàppee ah, parce que mu ma xalaat nit yore ay nit ay kilifa ay borom kër ñu laaj la assurance nga ne mënoo la assuré. mais li ngeen xaar ba heure bi naa naa naa bàyyi ñooñu doon. et comme aussi ñoo bokk liggéey bi. Mhm. ñu aussi bon comme comme ñu aussi di xaar di jëm maslaa pour xool ndax ñoom la ñu réagir. naa depuis dix ans ñoo koy demandé. je te jure. mais mais mais dañuy xaarloo nañu tey ah non ñu ne ñu non même si même sax CNG assuré wu ñu kenn loolu ñu xam ñu ne même sax boo xoolee médecins yeeg euh, superviseurs yi kenn assuré leen non après on va le faire on va le ñu ngi ci ñu xam ñëpp mais comme risque yi bokkul xam nga kii arbitré ak médecin bi bokkuñu ay risque ma arbitre moo gën a visible. xam nga même même si kii supervisé bokkul ak ñu war a yor sifflé ñu koy xam xool télé bokkul ñu ne la ñu risque bokkul ñun on est exposé waaw ñu ne ñun on exposé xam nga ñu bon on va s'y dañ ko def di xaar chaque année ñuy dawloo mais nag comme je dis lépp tour ñu ne c'est le moment ñu ne soit day jàll soo ñu xool lu ñuy def ci di ñun ñu décision bi yëpp ak waa région yëpp ñu ne ñun dañuy téye suñu sifflé yu kenn bi du ñu arbitré waaw man man kay sa nuyu au passage parce que man moom fekkat nañu INSEPS may def euh, première année fekk moom mi ngi def euh, licence et puis Thiès aussi tamit bon xam nga quoi donc moom sax bokkoon sax ñu ma ne booy damay arbitré donc waaw c'est vrai nekkoon suñu pré suñu président mais après comme dafa demoon booru permanent nekk proviseur bon mu xaw a jógee arbitrage bi bon moom moo xam lu tax mu mu taxawee noonu mais comme léegi moom nekkatul ci habitation mu ngi moom kii léegi maintenant comment dire moo jël passe bati voilà loolu la moom xaw ma ci dara parce que man fekk ma réunion yi xamul xamul nu muy réagir en réunion parce que histoire mooy dem réunion moom fay nag xaw ma moom ndax dina wax ndax du wax mais comme léegi mu ci beneen côté bi peut-être yaa bon peut-être xel mën na nangu ne am position quoi parce que waxee ñu gis ko ne waaw parce bu waxee ñu xool ko ne la bu waxee voilà ah moom bi mu ciy nekk sax moom bi mu nekk président xamoon nañ ne dañoo kaas si moom xam na ko waaye ñu doon jàpp rek soo ñu ko xalifa il nañ noo waay nii nii xam na ko depuis yàlla mun moom noonu la jëlee dix kaas loolu mais moom tamit moom sax àndoon na àndoon effectivement lii du ñuy fay c'est pas normal mais xam nga rek waaw suñu paay ñu defal naan jàppale nii dina baax dina baax ba instant bi nii moom moom leer na ko xalifa condition yu ñu nekkee nii du yoon sans assurance san sécurité du yoon manque de volonté bi surtout ak manque de considération par rapport aux arbitres non ci man non ci man ils ne nous considèrent pas et puis fay yu bëri naa ay fay yu bari ah ay fay yu bari xam si ne ñii dañ naan ñii dañuy soob te man yaakaar naa ne peut-être fa fa lañ juumee quoi xaaratuñu woon ne un jour que arbitre yi nañu rebellé wu boo xoolee sax dañ tukku ne leen su baax ñu xool ñu def parce que mosuñu xaat ne. arbitre mën nañu mën nañu mën nañu parce que dafa dafa yàgg defuñu dara na ah ñi dañuy sóob bu mujj fenn da bett nag bett ne leen lool te yaakaar naa ne bu ñu toggee nelaw dañ naan ah def nañu erreur ñii au moins waroon nañu leen déglu waroon nañu waroon nañu collaborer. non non dama ne suñ suñu bi. bett na ñoom. des comme nous. yoo xam yoo xam ne kon kon ñooñu habitude ay nañu. ay nañu. ah non et puis non dafa am ay arbitre ak ay entraîneur lañ jëli. si amoon ay entraîneur yu yu yu ay entraîneur yu arbitré. du leer laa wax ni ay entraîneur ci lañ bokkoon encore mais Njambe moo doon euh, Njambe moo doon jël feuille feuille match bi yenn combat yi seetloo ko si Njambe moo doon jël moo doon yor feuille match bi jël temps bi parce que yenn arbitre yooyu mu ñoon bind ah non. c'est waaw mais la grève elle est waa Thiès waa Fatick waa Kaolack waa Ziguinchor tous les arbitres yoo xam se ni ils ont un grade régional national départemental ils font partie de la grève am na nag ñoo xam se ni au début n'avaient rien compris mais beneen lañ ñëw ñëwatuñu parce qu'ils ont compris que la cause c'est pour tout monde suñu grève bu ñu dee mais pour ñëpp la pour que arbitres yëpp am assurance. mu leen la soo paree am nga sécurité assuré nañ la lu ci xew gars na nañ jël en charge loolu la mais ñu jël nii boo xoolee sax nu ñu arbitré nga xam na ñii c'est pas des arbitres quand même waaw ay ah, te te xam nga tey CNG bu naroon bu naroon tey ut solution euh, donc la grève on a le jeudi le vendredi on les a informés nekk week bi du ñu siffler mais la moo leen tere wooñu le vendredi soir samedi matin parce que effort bu mu def pour jël oto dem jël arbitre ci village yi sa seen oto indi leen paasal leen peut être daal leen ñu lekk jox leen ñu euh, ñibbi aller retour loolu boo ko yokkoon ci kese arbitre sax ça rek à part euh, en partie le euh, le problème oui dafa je me rappelle si si toog mu naan na ku nekk téye téléphone parce que mën nañu woo du moment à l'autre bu ñu wooyee dañ dañ dem uji donc on était prêt à négocier mais def ñu loolu ils ont automatiquement coupé UTR bi. mais waaw recours bi ma Mag laa di Sitor laa di euh, recours bi ñu ne jaru ko. waaw waaw hmm. donc déjà sax ni ko defee moo moo dul yoon. mu toll kaas store store bi ñu raje si store ak arrêté moo ko fal CNG amul droit amul makkaama raje store comme ministre bi moo bind bi ministre bi moo ko woon raje mais pas CNG CNG dafa waroon bind ne ministre bi maak store mëntu ñu liggéey ministre bi ministre bi approuvé mais defuñu loolu. non euh, recours boobu xëy na xëy na. donc moo tax mën a naan dafa am dafa am manque de considération je te jure parce que comme l'a dit Sitor effectivement manque si encore nee na CNG gars yi def na ay erreur am pagay mais dara du leen ci fekk. mais xanaa tey erreur ne. Mhm. am na ay membre du CNG laa wax. Mhm. def erreur am am waaw mais ki mosuñu daan benn yoon. Ah waaw. dafa mel ni de. dafa mel ni amoon une dent contre certains waaw ils en ont profité pour voilà et puis aussi peut bu ñu suspendre ñu ci kaw rek ñu suuf ñi suuf la ñuy dem seen genn ah, alors que ils n'ont rien compris bu CNG ma dem mosuma ca dugg non ñun boo arbitré yaa yaa demal sa bopp yaa pass sa bopp dem ba stade ñibbi si stade. yow ko mënul assuré di ko jox bis ko mënul assuré di ko jox bis da koy naqarul bu baax a baax waaw parce que dama ne boo nekkee njiit boo amee ay njaboot bu coo amee da ci war a neutre déglu camp bi déglu camp bi ngóob solution mais depuis lors à part le premier jour le samedi boobu mu waxoon ne store euh, bàyyi leen grève bi ngeen siffler. après lundi nga ñëw euh, lundi nga ñëw ma recevoir leen n'est-ce pas ñun bu ñu ñëwee stade déjà ñun fekk ay arbitre di arbitré nga xam ne ñun la ne moo ñëw forcé après ñu ne ñu ko ah ñu de jëliñ seen arbitre ba pare donc mu ñu arbitré ñun dañu yaakaaroon ne comme arbitre ñu kon lundi mu ñu rencontré ma parce que daf ñu ne boo arbitré lundi on se rencontre waaw mais depuis lors fouraas aucune nouvelle wala wala boog wala wala boog mu jëmale Alioune Sarr est-ce que du ñu du ñu gérer lii Alioune ko non bàyyi mag ñii xëy na loolu mun na am xëy moom peut-être amoon na intention ne ah, xaaral ma woote ñii parce que voilà ñii ak nii peut-être Alioune ko ak moom nu mu yëgee boppam. ne ko non non non bàyyi ma ñii ñii ñii naan def nii naan nag man sax ma di rien en fait man arbitré bañ a arbitré laa yemale. au contraire sax ma ko doon ji lii nag est-ce man sax loolu arrangé ma. ah da du xëy liggéey eh, lundi da ngay sonn bakk yàlla waaye dama def ko nga sonn bon loolu yëpp aussi amul mais dama même ñi di addu tey nii ñun bu ñu carrément mais ñoom au moins seen affaire dina baax parce que dinañ leen assuré nañ xoolaat dañ fay loolu rek ndam la ci ñun même tey ñu ñu tey carrément amee xel ni naan ah ñee ñu dàq de moo tax ñu am lii ñun loolu la kaas kaas pour ñun de mais pour ñëpp la ñuy pour ñëpp ñu après pas pour ñun parce que xoolee man li ma des si Abdoulaye bëriwul ah bëriwul ah. man du xale daam âge boo xam ne da da ngay bàyyi arbitre la. Euh, cinq cinquante cinq ans la mais est-ce que parce que bon comme léegi euh, peut-être soixante mais pour ñu di ñëw ñu di après la suñu rakk yi ñëw wala suñu doom yi pour au moins bu ñu fi nekkee. ñu au moins am benn assurance am voilà ñu xaw leen tete comme ay ay nit quoi. non afet fait du attaque réponse la parce que ñun en bi amee bi bi mbas bi amee dañoo xam ne comme instant bi da dalul mbas dañuy bàyyi mu sedd quoi mais Alioune Sarr dafa dugg ci benn benn groupe WhatsApp ANPS wax fa ay waxam n'est-ce pas ñun aussi ñun. comme quoi que arbitre yi waroon na nañu def recours arbitre yi xam nañu règlement xam quoi que arbitre yi moom moo moom moo mayoon ñu jël xaalis sponsor bi di koy séddoo ah ñetti loolu amul ma ma sœur amul. amoon na mais dafa dafa ne xaas bi ñetti arbitre ñeent ñeent arbitre ñoo koy séddoo xool temps soo commencé ah. defe naa su ma fàttali ko est-ce que dix mille francs xam barke yàlla. parce que ñëpp ñu ko doon séddoo même paa yi bàyyiwoon sax dañu une part may leen bakk yàlla ba ci région yi donc un demi franc loolu la la na sponsor temps si temps yii j'étais arbitre euh, kii euh, mu tudd waaw après nag ci lañ jël suñu décision comme léegi moom réagi na ñun aussi dañ sax suñu dar wax affaire naka la demee mais du du attaquant c'est juste une réponse wala leeral leeral <laughs> mais wax nañ dara. yéen ngeen leeral. sponsor bi neex sponsor bi demul noonu ñëpp ko doon bokk. non nu affaire bi noonu du affaire bàyyi dama ne képp fu mënta nekk même Aliou Sarr tey tey bu bu bu toogee CG bu bu ñu woowee encore rek naan nii ak nii ak nii lay demee. mais ay non punirul kenn dafa non en fait li mu yaakaaroon mooy que daf ñuy punir ñoo di koy ñaan si affaire wu esclavage yooyu yooyu amatul ci dëkk bi. nee naa la nee instant bi nii moom bu réagiroon comme kilifa du ay feeñtu nii bu ñu woon le samedi matin dañuy toog waxtaan. man loola loola jàpp déjà sax daf ñu menacé ne su boobaa ku nekk nañ na xam ay menaces nee yaakaar musul yaakaar ne. ñun on va aller en grève. affaire feintulant affaire u affaire orgueil ku nekk jàpp sa position loolu la du na ah, te njit warul demee noonu boo boo yoree boo yoree ay njaboot man sax man sax am naa ay doom te sama doom tey sax su ma yor sax am naa xam si ne war naa war naa defar sax bàyyi mu seet tuuti mais du ma ñëw si Fatick naan sax dama dama par force da ngay def mu nekk. surtout ay borom kër moom si nii yor dañoo yor ay njaboot comme yow walla loolu la. non département man de mu toog. mu dem ça me laisse ni froid ni chaud encore une fois man daal li may li ma li may ñaan mooy ak kii fu mënta nekk nañ jox arbitre yi seen gëdd point barre mu toog mu dem loolu sama yoon newu ci du may décider awma ci benn position nee la man wax naa la xam naa la yàgg làmb ji yàgg naa ci mais dama gis ci làmb ji parce que man arbitre ñi bi mooy sama liggéey gérewuma CNG ni muy doxee gérewuma CNG xaas bi ñu koy daggee su ma yoon newul ci loolu encore une fois ministre bi du moom la Macky Sall dox euh, pouvoir moom mooy xool lii arrangé làmb mu def ko du man maa ko du man maa ko naan jëlee fi Alioune moom bu xoolee lii arrangé làmb ak làmb doxee su bëggee soor avancé c'est à lui de prendre la bonne décision am na ay conseillers am na un staff mais moom xam na làmb lu muy dox xam na instant bi làmb fu mu toll moo gën a xam donc c'est à lui de prendre la bonne décision pour que làmb ji avancé point barre avec ou sans Aliou Sarr mais xam nga xam nga euh, comme CNG la c'est pas c'est pas la fédération xam nga xam nga tey bu doon fédération dañuy dañuy dañuy dañ dem élection de. football nii ligue ñooy ligue yi ñooy ñooy ñooy ñooy élire ñooy élire seen seen seen seen président mais bii ministre bi mooy tànn mooy nommé. te ma nag le mieux peut-être à c'est que ñu dem vers la fédération vers une fédération comme ça ki fi nekk nga xam ne gars yi ñoo koy nommé deux ans liggéeyoo gars yi génn la point barre mais ay ay cinq ans vingt ans vraiment dix ans c'est trop pour être euh, dans une structure dafa dafa bëri. olympique bi gars yi war nañ ci ah bon ñu ne bon en fait bon ñi di voyage souvent ñoom Malick ak ñoom Sitor ñoom dañuy dem di bon temps année yu mujj yëpp en général Sénégal médaille du ñëw parce que quelque part fii amul compétition olympique amul non non day ñëw rek stage yu formation stage benn une semaine deux semaines ñu dem compété ñëwaat donc lutteurs yi kenn du leen préparé comme il xam nga ab ab dafa dafa dafa démissionné pour lan. Hmm? xam nga Thiès amoon na benn centre fii laa bi fi newoon Thiès SANEPS. xam ne mbëru Guinée yeeg ñëpp fi ñu doon fi ñu doon nekk fi ñu doon entraîné quoi mais nañ ko yóbbu ko Maroc donc mbëru Guinée yeeg Burkina yëpp centre boobu la ñuy dem mais benn bës Sénégal nekku fa parce que même su amee problème ak euh, kii gérer kii gérer kii gérer lamb Afrique mais bul pénaliser sa mbër yow ay deux ay trois ngay am lutte olympique bi dafa manqué quoi il faut il faut que ñu mën ay compétition olympique ñu ñu jéem xale yi mbër yi ñu def olympique muy Thiès muy moom ay tournoi xale yi di am di am compétition dem ci aussi dem ay dëkk naar yi di compétir loolu rek moom moom tax mu mu kii mais bi dafa mel ni kenn faara quoi daal bëre dóor bi la ak bëre cinq bi point barre ak am lamb ju loolu loolu fi xam nga man dama naan nit nit nit warul ragal dara dëgg da nga koy wax xëy ñoom danga xam na ñun ñoo ci dëgg moo tax ñuy jàppale loolu intérêt làmb la sax intérêt làmb mooy nit wax dëgg parce que mën na comprendre nga nekk ci benn structure benn structure euh, benn nit mooy dogal benn nit mooy wax loolu dafa grave loolu donc tey ñu naan Alioune Sarr Alioune Sarr Alioune Sarr mais membre CNG aujourd'hui war nañ toog ne Alioune Sarr attention décision bi nga jël baaxul parce que nii ak nii ak nii ak nii. dégg naa même réunion bi muy def ak arbitre sax moo jël parole bi début à la fin moom rek moo wax début à la fin. kenn waxul début à la fin moo wax membre bureau yi kenn waxu ci mooy tontu kenn du wax. mais Fatima wax naa la wax naa la xam nga xam nga ñun xam nga xam nga ñun mm-hmm. ñun ma ñun demandement du CNG lañu. mais lépp on va le faire en famille donc ñun on a essayé pendant dix ans nee nañ defal nañu lii jàppal nañu ci lii defal nañu formation yi nii defal nañu lii pendant dix ans de plus ñun loolu lañ mën mais mënoo nag ñoo bokk ci benn kër rek lu am na nga génn waxu mu nekk da ngay négocier pare mais nag ba demee da nga bës maintenant ah mais il faut nga exposer c'est c'est le cas mais du ragal du dara on a pensé que ñoom pendant dix ans ñu ñuy dëkk nañu def. mais ñuy dëkk tey suba tey suba tey suba ba bi mujj sax lan lañ lan la ñu wax xaar leen ba ñenn ñëw ngeen posé seen problème loolu yabaate la. tant que delluñu store ci ay euh, euh, tur poste arbitre tant que ñoom Malick duñ seen suspension tant ñun suñu assuré wuñu tant que yokkaluñu suñu kii nii. ku mel noonu sacrifié pendant dix ans mun naa defal ko lii affaire xam ne lu simple la affaire yu ndaw la laaj ñu ay millions laaj ñu sax ay millions mais au moins nga jëm ko considérer mais ko dans de bonnes jëm ko sécuriser xam nga jox ko gëddëm loolu rek non loolu daga naa ku ku ku ku bëgg laa avancé ci ngay dox mais nit wax rek hop nga ne koy rajee daa mel dafa amoon leen ci ginnaaw. waaw di jégalu parce que baat bi ma xoo dee jógee examen ci élèves yi xam nga rek élèves yi moom ngay war ko day wax ba bëgg a dee. donc xam naa bu leerul bu bu wax ji leerul daal ngeen maa ngi ci jégalu quoi waaw di kontaan ci ci vraiment ci ci invitation bi di la ñaanal seen bi yàlla na kaw a kaw yàlla xam nga waaw yàlla waaw yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot waaw may leen wér yaram waaw yàlla may ñu nag vraiment mbas bi nii mu jóge fi son nañ ci lool lépp a bloqué du école yi lépp lépp vraiment yàlla yàlla may daal mbas bi génn fii nekkaat ko ci suñu suñu vie normale quoi. waaw di gërëm sama mbokk arbitre yëpp du Sénégal ma di leen di leen di leen aussi di leen ñaanal voilà encore une fois di ne Astor joyeux anniversaire ak sama xarit Laurent Diouf arbitre mooy président CRAW bu Diobel ah bu aussi waaw di leen féliciter ak mbaa ci kanam quoi.